sëriñ abdul ahad mbàkke sëriñ abdul ahad mbàkke mi ngi gane àdduna ci atum 1914 ci dëkk bu sell boobu di njaareem booba waajuram wi xaadim rasul mu ngi ci résidence surveillée keroog bi mu ganee àdduna mi ngi dëppoo bisub altene ñaar fukki fan ak ñett ci weer wi di weeru korite ci atum 1332 ci gàddaay gi altene ñaar fukki fan ñett ci weer wi di weeru korite ci atum 1332 ci gàddaay gi dëppoo lundi 14 septembre 1914 lundi 14 septembre 1914 ci dëkk boobu di njaareem doomu xaadim rasuul la ak kii di soxna Mariama Jaxate keroog bi mu ganee àdduna ba ñëw yëgal ko ku baax ki sëriñ Tubaa seexul xaddim di ko wax ne soxna Mariama Jaxate am na lii di gan seexul xaddim ma ngay wax ne am na yaakaar ci jëmm ji ganee àdduna bi mu amee ay bis la ko tudde Abdul Ahad seexul xaddim ma ngay wax keroog ne tur wii di Abdul Ahad de jëmm ji mooy ki ko njëkk tudd ci kaw suuf képp koo xam ne nii nag yaa ngi wax tur wi mu waree te soo ko yàq yowmal xiyaam moo la ameel ak pay kenn rek la bokkal waajur wu jigéen ci mbooleem njabootu xaadim rasuul gi ñu koy wax sëriñ sohee bu mbake bi matee dal lii di alxuraan moom cheikh abdul ahad mbake ci juróom benn at jàpp juróom-ñaari at la toll booba mi ngi tombeeg 1920 sëriñ tubaa seexul xaddim moo ko dalal alxuraan ci njaareem ginnaaw bi nag la woolu nijaayam sëriñ amsatu jaxate jox ko ko ci daara sëriñ amsatu jaxate jooju mu nekkoon ci dëkk bu sell bii di tuubaa ku ñuy wax sëriñ ma alxuraanul karim fa la nekk ba bind lii di kaamil bi bi muy bind kaamil bi waa waajuram xaadim rasul mi ngi fi kaamilu cheikh abdou lahad waa waajuram tegu ci bët nijaayam jii di sëriñ amsatu jaxate da doon xaar yeneen ñaari rakkam yi bind ba noppi muy sëriñ tubaa cheikh saaliwu mbàkke ak kii di sëriñ soye bu mbàkke laataa ñooñu di bind na xaadim rasul génn lii di àdduna ginnaaw bi nag la nijaayam jii di sëriñ amsatu jaxate fop kaamilu sëriñ soye bu cheikh abdou lahad mbàkke ak kii di sëriñ tubaa cheikh saaliwu mbàkke yit ko seen Moustapha Mbàkke ci tundoodi sëriñ Amsatu Jaxate ma ngay xamal kii di Cheikh Modou Moustapha Mbàkke di ko wax ne lii la ma seen waajur wa santoon ci ñoom kon Abdou a ngi nii saaliwoo ngi ni ak kii di Sohaybu Cheikh Modou Moustapha Mbàkke jëlaatoon na kii di Cheikh Abdou Mbàkke bàyyi ko foofu ci tundoodi jox fa ku ñuy wax sëriñ Maxtaar Jëng Guyaar mu wéel ko lii di am njàngam ginnaaw sëriñ Maxtaar Jëng Guyaar nag joxaat nañ ko sëriñ Habibu Mbàkke imaam ci Tuubaa mu tëralal ko lii di xam-xam ci atu 1932 nag la Cheikh Abdou Lahat Mbàkke ñibbisi waa tundoodi Moustapha Mbacke ngir Cheikh Modou Moustapha yar ko tarbiye ko man koo awale fa leen seen waajur wa awale woon booba na Cheikh Abdou Lahad Mbacke ci fukki at ak ñett rek la toll wala gën ngaa bari fukki at ak juróom ñaar Cheikh Modou Moustapha Mbacke na jël na kii di Cheikh Abdou Lahad Mbacke fas yéene koo tarbiya ndax kat ndono lool rek la leen fi seen waajuru tedd wa Xaadim Rasuul bàyyil te moom itam loola ci lañ ko yar kon kat ñi nga xam ne nii tey jii bu ëllëgee buñ leen tuddee tudd ko fu mu jaar tàggat leen ci loolu ndax bàyyeekook lii di yoon wi kon jël na ko ci atum 1932 nag ngir yebal ko mu dem sanc lii di ay dëkk moom cheikh Abdou Lahad Mbacke nekk na ci loxoy cheikh Mamadou Moustapha Mbacke di magam di ko liggéeyal def ko sëriñ ak lii di waajur ci atum 1932 ba 1945 ci le 13 juillet ba cheikh Abdou Lahad Mbacke buggul dara soxlawul dara dëgmal rek magam jii di cheikh Mamadou Moustapha Mbacke cheikh Mamadou Moustapha Mbacke itam moo ko taxawal lii di kër sanc na ko ab dëkkitim ci atum 2 muy dekk bu ñuy wax daru rahman ñu gën ko xam ci daru nar ginaaw bi cheikh kundigal. mustapha mbake dek ne ko ndigal mu dem sanc dekk bu ñuy wax kaddu bolloo ji ci at momu di 1932 ci atu 1935 cheikh mawlu moustapha joxone ndigal cheikh abdoulahad mbake mu dem sanc dekk bu ñuy wax baddem ñaan ci atu 1936 joxna ko ndigal mu dem sanc dekk bu ñuy wax galongal ci atu 1944 dekk bi nak la cheikh mawlu mustapha mujjé jox cheikh abdoulahad mbake ngir mu sanc ko wala dekk bi le cheikh laxat mbàkke mujjee sànce ci ndigalul cheikh mamadul moustapha mbàkke ñu koy wax daaru salaam bukki barga cheikh abdoulahat mbàkke diirub lim nekk ci dëkk yi ko cheikh mamadul moustapha sàncloo lu mu am it kii di magam ji cheikh mamadul moustapha mbàkke nekkit li ñu tudde ab baykat ndax cheikh abdoulahat mbàkke xam na ne lii rek moom moo mën a maye dara ba tax na itim lii di këru tuuba sax cheikh abdul axat mbàkke musu koo nangoo wut ndax xam na ne bis dana ñëw lépp loo xam ne nii war na ci moom mu am mooy maye lépp mu topp ci ginnaaw magam ci cheikh mamadul moustapha mbàkke ba le 13 juillet 1945 cheikh mbàkke génn lii di àdduna cheikh abdoulahad mbàkke seede lu am solo ci magam ji wax na de kii di cheikh mamadul moustapha mbàkke musta xonqal seenu bët musta tuur itam lii di seenu rongooñ ñaari doomam yi di sëriñ mbàkke na ak kii di sëriñ cheikh mbàkke gaynde fatma ñoo ko magoon ci wàllu zaayir waaye kii di cheikh mamadul moustapha mbàkke musta yónnee te fobul yónnee liggéey moom mooy nekk seen kilifa cheikh abdoulahat mbàkke seedeel na ko magam ji keroog bi mu génnee àdduna mu wéy nag jébbal léppam ñaareelu xalifa baayam di cheikh mamadul faadal mbàkke def ko nu raw sax ni mu defoon magam ji cheikh mamadul mustapha mbakke ndax xam na ni ku ñu war a topp dangay toppee te kaalakat balaa dem ci bopp day jaar ci ndigg mu def kii di mu mamadul faadal mbàkke waajur ak lii dib sëriñ cheikh mamadul faadal tim di jox ndigal kii di cheikh abdoulahat mbàkke ngir mu dem sanc waajuram wa waxoon ci jàmbaar ji itim kon ñoom war nañ koo waajal ba bis bu yan bi nekkee ci kawam kenn du ne bàyyi laat acam kii di cheikh abdoulahat itim gis na magam yi ni ñuy liggéeyee ak itim niñ amee pasteef te lépp a ci seen kanam waaye taxul ñu xool ko kon moom it roy dong la mën a def ci magam yi jëmm jooju di cheikh abdoulahat mbàkke ay atam ci fanweeri at ak benn rek la toll kon tu tànk la ba tey ci wàllu zaayir magam ja di cheikh mamadul faadal mbàkke mu dem sanc ay dëkk ci atum 1954 sanc loon na ko dëkk bu ñuy wax bayti ja ci atum 1956 mu dem sanc dëkk bu ñuy wax mbaraan jeng cheikh abdou lahad mbàkke wiy nekk ci dëkk yooyu mu sanc di def lu mu bay yiti di magam ji cheikh dul faadal mbàkke mu def ci jumaa ji cheikh mamadul faadal mbàkke itam xam na ne kii di cheikh abdou lahad mbàkke responsabilité bu yaatu war naa nekk ci ginnaawam bu ëllëgee te seen waajur wa waxoon na ne jëmm ji am na ci moom yaakaar yaakaar jooju seexul xaddim amoon ci moom du deñ kulli haalin lii di xalifa général de mourides moom cheikh abdou lahad mbàkke dana ko nekk ngir yaakaaru seexul xaddim ja ñu mën caa teg bëtt mu jël ko nag tàmbali ko miinale lii di taalibe yi yabaloon na ko mu dem tukki ci réew mi di Côte d'Ivoire ngir nemmeeku ji taalibe yi ci at yu mujj wala ci weer yu mujj mu mamadul faadal mbàkke itam woon na kii di cheikh abdou lahad mbàkke ngir di ko wax mbooleem ëtt boo xam ne ni seexul xaddim la fa nekk moo ko fa def na fa cheikh abdou lahad mbàkke dem ngir nemmeeku leen ñooñu itam xam ko ëtt boo xam ne nii seexul xaddiim moo taal taal ba ci atum 1967 seex abdul mbàkke dem na ba ci sëb dëkk ziar la booba cheikh mamadul faadal xam na ne mi ngi tàggatoo te cheikh abdul ahad mbàkke lii di yen bi moo ko war a yanu kon nag na ko teel a xamaleeg taalibe yi ak lii di seex si mag ñu bari bi ñu déggee cheikh abdul ahad mbàkke moo toog xalifa da leen a yéem ndax sax ñu bari miinuñu ko woon ci doomu seexul xaddiim yi ndax mi ngi woon ca tool ya nekku baykat moo xam ci ay magam di ay xalifay waajuram wala waajuram ci boppam ndax kii di sëriñ moor absa loo sëriñ tubaa seexul xaddim mas na koo jox ab ndénkaan di ko wax ne moor sa ndénkaan lii ma la jox de dencal ma ko fukk nit du jële wala fukk nit du tege bëtam te ndénkaan lii tim nag bis dana ñëw ma laaj la ko du la fi fekk yow moor absa loo man mi di xaadim rasool mi la ko jox duma fi fekk waaye boroom dana ko jël si su boobaa nag ki nga koy dénk na nekk ko am fulla bu ko jox na ku dul boroom booba cheikh abdullah Abdulahat Mbàkke ganeegul lii di àdduna sëriñ Mor Absa Lo dund na fi ba làqu sëriñ Tuubaa Seexul Xadiim dund na fi ba làqu Cheikh Modou Moustapha Mbàkke nekk na fi ba làqu Cheikh dul Faadal Mbàkke nekk na fi ba làqu bi sëriñ Abdulahat Mbàkke toogee xalifa ci atum 1968 la dem njaareem ñetti yoon di laaji lii di ndénkaan la ka sëriñ Mor Absa Lo joxoon ndénkaan la di sëriñ Saaliw Lo may doomam sëriñ Saaliw Lo tànqamlu na ko ay yooni yoon ndax koy jox na nekk ku am fulla ba ndénkaan li na am fullay bu mu ko jox ku dul boroom moo tax bi Cheikh Abdou Lahad Mbacke ñëwee laaj ko Serigne Saliou Lo mu xam lu ko te ñetteelu yoon ba nag la koy wax ne Saliou soo ma ko joxul ma wooka la ko joxoon mu laaj la ko nga jox ma ko Serigne Saliou di ko wax ne kooka kan la mu ne ko xaadim rasuul ma woo ko mu seede ñu ñun ñett ngir nga jox ma ndénkaan la ci la Serigne Saliou nag doog a jóg ubbi gaal nga jox ko ndénkaan la kon Cheikh la ndénkaan cheikh abdullah khat mbake mang koy wax ne salu de war nga sante suñ borom bu baakha ba baax ku ci teggone te nekkul ku touba mbake defar lo baax baax da ngay dem sawara sering saaliw lo mom wajuram di sëriñ mor absoloo tudde nako dom, ñaari dom ni tok ni nii toogaayu sëriñ moor absoloo moom lañ ko tudde baneen bi tim mo ci dekk bi daru salam wanar bi mi doog tok khalifa boba khalifa xalifa sëriñ alin bi di sëriñ abdou jama sek moy ka fa khalifa xalifa abdullah khat mbake tim dem nafa, yagu fa sa gën nga bari fan fanweeri minute la fa am dugg ci barabub sëriñ Alioune Seck wanaar njaboot gi bëggoon mu yend mu leen di xamal ni damay delluwaat Touba ndax dafa am lu ma doon jël si rek ci sëriñ bi lii itam jaar na fi kon Cheikh Abdou Lahad Mbacke ku ñu waajal la laata muy toog xalifa ndax xaadim kat fàggul na doomam ji Cheikh Mamadou Fadal Mbacke nekkoon ñaareelu xalifa waajuram itam mi ngi génn àdduna bisub talaata juróom benn fan ci weer wi di weeru ut ci atum 1968 ci bi 18h30 jotee ci kër kër gi wuuf jumaa ji kon cheikh abdou lahad mbàkke mi ngi toog xalifa allar ba fukki fan benn ci weer wi di rakkaat ji gàmmu ci atum 1388 ci gàddaay gi allar ba fukki fan benn ci weer wi di rakkaat ji gàmmu ci atum 1388 ci gàddaay gi dëppoo muy mercredi août 1968 mercredi 7 août 1968 cheikh Abdoul Ahad Mbacke ñëw nekk nag ñetteelu xalifa xaadim rasuul murit yépp nag di ko xoole xaadim rasuul mu xam ne yan bi benn la na ko magam ya yore woon rek noona rek la koy doxale cheikh Abdoul Ahad Mbacke xam ne itam bépp doomu aadama wala bépp murit bu wànneen tuufaay bi koy faj moom mooy ki ko war a jënd bépp murit bu jooyitim itam musuwaar bay fomp say rongooñ mooy ki la ko war a jox liir bu jooy itim mbootu ma lay nax itim moo la ko war a boote ci gàttal daal bépp jafe-jafe bu murit am cheikh abdul ahad mbàkke mooy ki ko war a faj ndax kat léegi moom la ñuy xoole xaadim rasuul cheikh abdul ahad mbàkke sukkandiku nag ci téere bi waajuram wu tedd wa xaadim rasuul bind muy matlabul fawzeyni def ko mu nekkub liggéeyam ba ci gaa yu bari daa ko wooye le bâtisseur muy ki nga xam ne nii mooy tabaxkat bi mu sanc nag dëkkam bi mujjee sanc ci kaw suuf di Tuubaa 1970 ci atum 1970 Bobu la taxawal lii ñu tudde bibliothèque khadim rasoul ci 1970 bobu Batay li di daayira bi ñu njëkk taxawal ci réew mi di Allemagne ci lañ ko amal ci atum 1974 ci lañ taxawal mouvement des étudiants mourides Cheikh Abdou Lahad xam ab liggéey mom fu mu jaar am ay daayira yu ko ci jappalé mu wéy taxawal ay daayira bul Fawzayni li di serigne touba cheikhul khadim don na fa ñaan lépp lo xamné nit soxla nako ci aduna bi su touba Touba fekk ko fa te loolu kat lii di ab marché itam baax na ci Cheikh Abdou Lahad Mbacke yeesalaat lii di marché Ocass ba mu gën a ay ayib marché Ocass bi ñu ngi ko inauguré ginnaaw bu ko Cheikh Abdou Lahad Mbacke yeesalaatee ci le 24 mars 1977 somme bi mi ngi tolloon ci ñetti téeméeri millions ak fanweer boole kook nag yokk yeneeni marché ci dëkk bu sell bi di Touba Cheikh Abdou Lahad Mbacke xam ne murid itam dañoo war di génn lii di Touba fu ñuy dal itam tumranke mu xam ne itam liggéeyal xaadim rasuul baax na lool foofa mu def nag lii di kër sëriñ tuubaa yi mu taxawal kër sëriñ tuubaa gi nekk ci tuubaa kër mag moom ndax sëriñ tuubaa seexul xaadim kër gi gim amoon fi lañ samp jumaa ji ci li dale ci xilaaf ak cheikh amadou moustapha ba ci xilaaf ak cheikh abdou lahad mbàkke sëriñ tuubaa moom amul woon kër ci tuubaa ndax këram gi ci lañ def jumaa ji cheikh abdou lahad mbàkke moo indiwaat kër seexul xaadim ginnaaw kër seexul xadim ca Pekes Kes, Kolda Fatik Jurbel, Rifisku Pikin ak Kër Samba Kane ak fanen ak fanen ci bir réew mi Cheikh Abdullah Lahad Mbacké xamni itim Cheikhul Khadim Xaddim loo ta liggéeyal te du alxuraan itam des mu taxawal kër giñ tudde kër daaray Kamil topan mag ñi itim lepp lo xamni bindum Cheikhul Khadim la mo xam lettre la mo xam alxuraan la wala lenn ci lu mag ñi bindon ñu denc ko fa ndax kat bis dana ñew ñu soxla ko kon ba nëga ni nit ñaangi xol jëfi Cheikh Abdul Ahad Mbake mbàkke jooju ginnaaw kër sëriñ tuubaa yooyu bu ko cheikh abdou lahad mbàkke taxawalee ba noppi def nag lu am solo ci kër seexul xadiim yi wax ne kër seexul xadiim yi kat moom mi ko tabax moomu ko képp ku fi nekkal seexul xadiim yow yaa yilif kër yow yaa ko moom cheikh abdul ahad mbàkke woolu ay kilifa ci dëkk bi di tuubaa ngir ñu def seede ci wax jooju mu wax mu woolu greffier bu njaareem ci jamono jooju mi ngi tuddoon bayti faati dem moo nekkoon greffier bu jurbeel Abdourahmane Mbacke woolu ku ñuy wax sëriñ Amsatu Mbacke doomu maam Cerno Ibrahima Faati Mbacke ndaamal daaru la sëriñ Cheikh Jaxate doomu sëriñ satu Jaxate la ak sëriñ Muudu Maamun Ñang doomu sëriñ Afiye Ñang la ngir ñu def seede ci wax ji mu wax bisub seede ba moo nekkoon le 27 octobre 1972 ci abdullahan mbake ne greffier bu Jurbel Beyti fati Dem ak ñi nga xamni ne ni tuddoon naa leen di len wax ne keur Serigne Touba mbake yi ñu taxawal de ñu tuddo ko keur mak mom bis bu ma fi bayiko, ko lii di sa bu sax bu ko fa nit laal nañ fa lepp jebbal ko ki ma wuutu ndax ñu xamne ala lu ko bax ki Serigne Touba cheikhul khadim la kon jeuf Cheikh abdul Ahad mbake neewoon na len ki di Cheikh abdul Ahad mbake amul won keur ci Touba ndax liko waral àndaloon mooy liggéey bi mu doon liggéey ci àll bi ndax kat ci loolu rek lañ ko toqantal te kon moom rek lay tàqamtiku ndax ki la magam ja Cheikh Mamadou Moustapha nekkoon muy àll ba magam jim xamaatoon itam di Cheikh Mamadou Fadal Mbàkke foofu itam la nekkoon moom it loolu lañ ko xiirtal moo taxoon ci la nekkoon moo tax Touba daanaka amul woon sax fu fi nekk bi toogee xalifa nag ci atum 1972 lay doog a am kër gi mu dëkke Sëriñ Abdoulaye Fall Ndar mooy ki 79 sëriñ Abdou Lahad Mbacke na xam ne dëkk bii di Touba day màgg te dëkkub diine la dëkk boo xam ne nii kilifa gu làqu fi nañ la fa yéene denc kon kat yenn yi jaaduwul ñu di ko fi def muy lu mel ne rumbaay bi ak mbumbaay bi si Abdou Lahad Mbacke tere lépp loo xam ni xeetoo na ci wàllu caaxaan tëgg la tux la yoote dam ak yeneen ak yeneen ci 1979 ba ci 1980 mu am ñenn ñu dëgër bopp di wax ne lii Cheikh Abdou Lahad Mbacke bëgg wax ko yomb na waaye jëf ko lu jafe la cheikh abdullah khat mbàkke itam wéyaatoon na di def ay déclaration demone na ba wax ne képp ko xam ni yaangi ngi dëkk mbàkke bawal tay jaay li di sangara wala carte même boy jaay leneen lu julit wara a bu ko ben mourid laal nañ ko boycotté ñu teewlu déclaration bi ci cheikh abdullah khat mbàkke defoon ngir di xeex ak ñi xeex ak mom ci téré yi mu def am nak ci biir mbàkke ño xam ne wax nañu ne ñom duñu ko mëna bayyi bàyyi ñu di ko fi jaay kon nak yéen waa ma ngi leen di dénk ñoom ngeen bañ leen wax dara dugg seen kër def fa dara bañ leen a yàqal dara bañ leen seen alal waaye nag na ngeen maase ci rek si a ñu ko def ngeen am ak seral dara lu may bàyyi léegi daal li dalee ci rëkkilaat ba ci naan di gën a suufe te am alcool yépp lu ñu fi tere la lu ñu fi bàyyi la koo xam ne toogoon kon déclaration boobu la ci Cheikh Abdou Lahad Mbacke defoon ci atum 1980 waaye nit ñi ba tey rek dëgër Cheikh Abdou Lahad Mbacke nag woolu ñum séqal xaadim rasul muy doomu Serigne Touba Seexul Xaadim yi fi nekkoon jamono jooju muy Serigne Touba Cheikh Salihu Mbacke Cheikh Abdou Khadir Mbacke Serigne Sohaybu Serigne Murtada Mbacke Cheikh Abdou Lahad Mbacke woolu na kii di procureur bu Jurbel xamal doomu seexul xaddimi ak procureur dafa bëgg ñu seede ne lii muy tere lu ko yitteel la doomu seexul xaddimi ma leen limaloon na kenn ku ne signé woon nga ne li seen mag ji bëgg ànd nañ ci procureur itam bu Jurbel seede ne ne kuñ ci jàppitim dañ laa war a tëj lii di kaso bi lii nag ñi ngi ko amal ci bisub le 18 septembre 1980 quatre-vingt bisu keroog kii di Cheikh Abdou Lahat Mbacke defaat na ci déclaration ñu teewlu ko. waxoon naa leen ci ne bu fi kenn naan bu fi kenn dorog bu fi kenn tëgg tama bu fi kenn sabar bu fi kenn fekk bu fi kenn kar ma leen xamal ne waxoon naa leen ko waxaat naa leen ko tey si naa di leen ko waxati léegi nag am naa pas-pas bu weesu wax ji ngir dëkk bi nun sàmm rek moo ci suñu war a li fi borom di bañ feeg nuy nooyi dañ ko koy bañ le li mu fi bëgg feeg muy nooyi dañ la wax la ñuy defanteeg yow teg nañu ci suñu ne la wóor ne musiba ma lay dal du loon moom baatit moom saayir lay doon ngir sax la la sàndara may te ne la wóor ne ci kaso ba nga jëm lëfa ngoogu nag xam ne lu dëggu si man la loo xam ne bëgg naa mu wóor leen ne tere gii ma koy tere tere inu tiraanga laa ko tere tere inu sutura laa leen ko tere ku loolu soxalut nag ma nga ne danga ko fi def ku mu doon nag ci àddina ay tel booye moom muy tey bu dee tey li fiy juddoo dana juddu tey lu jokk li jii ma la war da nga xam ne sàmm fi ngeen bu baax ni Cheikh Abdou Lahad Mbacke daanelee ay kàddoom muy samay wax ak ngoog te loolu la amoon lu muy digal murid yi bari na nag ñu tëwoon te loolu dal na leen ñu teg ci ñaari at muy atum 1982 Serigne Touba Cheikh Abdou Lahad Mbacke defaat beneen déclaration mu jëm nag ci yokkub jumaay Touba ji bisub àllarba fukki fan ñaar ci weer yi di weeru me ci atum la Cheikh Abdou Lahad Mbacke njëkk a woo murid yi ngir ñu indi nag seen addiya ngir mu leen di wax ne itam dafa bëgg a yokk lii di jumaay tuubaa ji un milliard cinq cent lañ soxla woon ñu teewlu woote bi ci cheikh Abdou Lahad Mbacke defoon fii ci Tuubaa naalal naa ko fi ab liggéey mu jëm ci jumaa ji ci ñu koy war a wër ak maaraba buñ ci war a def ak yokk buñ ci war a yokk goo xam ne bii nii seen ñaari simér danañu ci mën a dale ci ñu ni li mu la koy war a liggéey dana jege milliard imaam yépp dana ko ci def digal na tali bu yaakaar sëñ Tuubaa loo am def maa ngi leen sant nag ab marbu la woon ak li di palaasu jullikaay yi ñi ko xayma won ci lu tollu junniyu nit ak ñaar téeméer man nañ ci julle ci yokku ba ay fan lañ ci tek mourid yi joxe sax lu kawé ndort mbooleem réew mi ba tax sax ñi doon bind ci walu économie jamono joju waru bay wax ne mourid yi de heure bu leen nexé sax nañu daané lu état nañu yek tip état Cheikh Abdou Lahad Mbacké itam jëlaatoon na radio ba ngir deggom wax ne lim soxla won sax limu jotako ëpp ñu tewlu waat nag déclaration bim ci def bi ba ma koy tàmbali dama leen a waxoon ne def naa ci téeméeri million léegi tey faf junniy million nekk na fi am na benn teel bi ne bu bu wax ne daf koy mottali kon nag ngeen yëg ne junniy million ak juróomi juróomi téeméeri million yi ñu leen waxoon jeex na maa ngi leen di gërëm maa ngi leen di sant maa ngi leen di xamal ne sëñ Tuubaa rek la no am na nu ci moom liggéey bu àgg nañ tàmbali beneen feeg ñuy dem jërëjëf jëf loolu dong laa doon woote na muridi seedee leen ñu ngi ko inauguré ci 1988 ca 30 septembre ba dëppoo woon ak mu nekk bisub ajjuma fukki fan ak juróom-ñett ci weeru safar ci atum 1409 ci gàddaay gi Cheikh Abdou Lahad Mbacke mi ngi xamal muridi ci appelu màggal gi di leen wax ne jumaa ji sax éggul dese na lii di ab kocc koccal waaye ajjuma ju dajeeg bisub màggal yombul kon nag sa fe location ñu ubbi waale ci lii di jumaa ji kon bi ñuy immigré jumaay Tuubaa ji ci liggéeyub Cheikh Abdou Lahad Mbacke jumaa ji eggul waaye nag ngir doon dab ajjuma ju tombeeku màggal moo taxoon ñu immigré ko Cheikh Abdou Lahad defoon na ca déclaration ñu teewlu ko. bisu àjjuma bu dajee bu dajee bisu màggal nag taxul mu yomb ni ñëpp yëgandoo ko xam ne mooy bés bi nga xam ne ci lu jëkk julli yokk jumaa ji léegi sax àgg bi ko des na ci waaye nag bis bi ci boppam mooy bis bu rëcc sunu bu nu boo xam ne bu jàllee amaana bu nu boobu Cheikh Abdou Lahad Mbacké def defan na beneen déclaration di naqarlu bu baax a baax nag tur wi di xalifa général bi biñ koy woowee ndax kan nee na moom kelkeliwul ci moom xalifa général luy soppeeku rek la waaye moom daal bu sañoon liggéeykatub xaadim rasool lay doon ñu lu déclaration bi mu ci defoon ngir di naqarlu xalifa général giñ koy woowee Abdoulaat xamal leen ne man de am na tur wu ñu may wooye woo xam ne tem soriwul ci man neexuma it dama ci amul benn pexe rek tur wi mooy wan mooy xalifa ji ñu may wax ngir xalifa defarul dara boo ko seetee ngir lool bi ku nekkoon fi barab nekkatu fa la nga fa fekkee xalifa loolu nag man nay ku ne mën naa mel lu ne mën nay lu ne da ngeen tiiree fa xalafa min ba'dihim xalfun adaa'u salaata wa tabba'u shahawaati fa sawfa yarawna xayyan ñu ne war a xam ne xalifa dootu dara man day ci ne may xalifaam bu fekkoon la ma bu ma doon xalifaam naayibam laay doon naayib de ci nekk bi mooy ko wuutu yilimaan te it ku ku ne xam ne ne fa yilimaan taxawoon lay taxaw te bu ñu déggee muy waxee danañu xam ne li yilimaan daa wax lay wax bu fekkee te waxatu ñu dégg déggu ñu xam ne la mu doon yàllu rek lay yàllu loolu ma gënal di jaamu bu yàlla bu mu nangu ak jaamam di taalibe sëñ Tuubaa bu mu nangu ak taalibeem te seewal ni ci sëñ Tuubaa ni mu seewee ci rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam téyel ñu ko ak suñu wéy nag di liggéeyal ku baax ki Serigne Touba Cheikhoul Khadim taxawal na fi nag lii di postu gendarmerie ci atum 1985 ci atum 1986 ba nag commandant bi fi njëkk a ñëw ñu koy wax adjudant chef mu ngi tuddoon Pape Ndiaye la njëkk jël fonction ngir jàppale Cheikh Abdou Lahad Mbacke ci wàllu kaaraange ak tere yim fiy tere ginnaaw poste de santé bi fi nekkoon ci Touba 28 Cheikh Abdou Lahad Mbacke moo fi indi lii di hôpitalu Ndaamaatu ci ndimbulul président de la république bi fi nekkoon Abdou Diouf mu xam ne murid yi itam war nañoo yónnee lii di ay bataaxal poste bi fi nekk itam ci xilaaf ak Cheikh Abdou Lahad Mbacke la fi ñëwee ci atum 1976 Sonatel bu Touba ci xilaaf ak Cheikh Abdou Lahad Mbacke itam lañ ko immigré ci le 14 janvier 1988 directeur bi fi njëkk a nekk Alassane Dialli Ndiaye la doon wuyoo Cheikh Abdou Lahad Mbacke itam xam na dëkk bii di Touba mar def na fi lu ne doomu aadama te moom sax xamoon na ko ndax nettali na ko lu bare bari ay waxtaanam mu taxawal nag ay forage ndax xam ne nakat ci xasida gi di la Matlabul Fawzayni Seexul Xadiim ma nga fa doon ñaan ndox fukki forage ak ñett taxawal na ko ci atu 1972 ba atu 1988 forage bi Cheikh Abdoul Ahad Mbacke njëkk a def ci Touba mooy forage bi biñ ko tuddee tam nekk ci yoonu belal wi tolloog fi garage yu belal bi nekk ñi ngi ko inauguré bisub alxemis 25 mai 1972 alxemis 25 mai 1972 ci teewaayu président de la république bi fi nekkoon di Léopold Sédar Senghor ak premier ministre mba di Abdou Diouf ak mboolem ministre yi nga xam ne ni ñoom ñoo fi nekkoon jamono jooju Touba nag am lii di ñaareelu forage am bi ñu tuddee ko ko moom moomu di xalifa général di mourides di Cheikh Abdoul Ahad Mbacké xaalis bañ ca def mi ngi tolloon ci cent quarante millions ñaareelu forage bi Cheikh Abdoul Ahad Mbacké defar mooy forage yu ñetteelu forage bi mooy forage yu Aynu Rahmati ñeenteelu forage bi mooy forage yu forage bi mooy forage bi ñu tudde F5 moo nekk ci yoonu daaru marnaan wi juróom benneelu forage bi mooy forage bi ñu tudde forage yu njuga kebe juróom ñaareelu forage bi mooy forage bi ñu tuddee bu ndaamaatu juróom ñetteelu forage bi mooy forage bi nekk saam juróom ñeenteelu forage bi mooy forage bi nekk Touba belal fukkeelu forage bi mooy bi nekk guy mbaam fukkeelu forage bi ak benn mooy bi nekk daaru raxmaan fukkeelu forage bi ak ñaar mooy bi nekk daarul xaddiim fukkeelu forage bi ak ñett mooy bi nekk Touba murit ci wetu bustaanu Cheikh Abdou Khadre Xaadir Mbàkke kon forage yi yëpp ci ndigalul Cheikh Abdoul Ahad Mbàkke lañ leen taxawale ndax kat xam na ne murid yi dañoo war a naan Cheikh Abdoul Ahad xam na ne itam jullit yi rawatina murid yi dañoo war a jàng ndax lii di xam-xam itam ñu koo umpale mu taxawal université bu Touba université bi moo nekk ci corniche Madiana bi mu yàkkale itam lii di quartier Touba yi ba mu gën a muxtaare courant bi itam mu dolli ko lu ëpp ci Touba itam ci wàllu godron Cheikh Abdoul Ahad Mbàkke moo fi def ndax ko cheikh mamadou moustapha mbàkke titre foncier mu dul fadal nag ko cheikh abdou lahad mbàkke mooy ki ko godronge ci atu 1982 ba 1986 cheikh abdou lahad mbàkke ku dëggu la woon ku am fulla la woon ndax ci xilaafaam rajo bii di rajo senegal da doon bundu xataal lii di murit yi di leen wax wax yu tegg nu wut cheikh abdou mbàkke ginnaaw bu mu yëgee loolo defoon na ci déclaration bu am solo di xamal kii di cheikh abdou xaadar mbàkke di ko wax ne nañ def na seen waajur wa tedd wa doon def ndax dëkk bu nekkaat képp kuy ab sëriñ am nga fa représentant bu ñu soxlaatee murit yi nañ war ay fas ngir yëgle murid yi ñu waxaat murid yi la xalifa yi soxla bu fekkee ne nag rajo bii di rajo senegal soppeekuwul wala tëgut waa Touba ñu nekk ay citoyen tëgu leen itam lii di ay sénégalais moom waat na ci seexul xaddiim ne lii di kàddoom moom kenn duutu ko dégg ci rajo bii di rajo Sénégal kon fulla ku ko amoon la ndax xam na ne yaakaaru murid yi mi ci loxoom Cheikh Abdoul Ahad Mbacké defoon na déclaration bi mu toogee xalifa général des mourides di wax ne bépp murid bu dëkk Touba sa pujum yow mal lay seedeel sak murit 80000 parcelles la nattoon jamono jooju 80000 parcelles yi nag Cheikh Abdou Lahad Mbacké defoon na ca déclaration bépp murit bu ñëw ñu jox la lii di pàkk te duñ la ca laaj dara lii di chef de village yi wala chef de quartier yi nag nañ bañ a laaj nit ñi lempo ndax nit ku dëkkagul mënagut a fay lempo te kër yi itam képp koo xam ne indi nga ay bagage ci lu tolloog at danañ la ko may bu at passé nag bu keneen soxlaata dëkkoo ñu nangu ko ñu teewlu fàttaliku murid yi. ñu daal moo di ku fi bëgg barab wutal matériel barab yaa ngi fi danañu la jox ñu amee fukki weer yu aat te defoo ca dara keneen ku yor dara bëgg a def daañu ko jox mu def ko fa yow nga ñu ba jekkale ko ñu na koy doxale li xam ne ñu lu ci nekk ay lamp yoo xam ne def garaan fayu du lu baax lamp ku dëkk fi barab la ko def si fayu ku fi dëkk daal sa njaboot nag war ngaa dund di restaurant jar yi wargal yu war ci koo xam ca dara moomagoo ko moom bu doon dolli ginnaaw tere googu mu doon tere chef de quartier yi laaj lempo ku dëkkagul tegoon na ci itam ñi fob seeni pàkk di ko jaay muy wax ne pàkk yi kenn muumu ko ba di ko jaay képp koo xam ne nii nag jaay nga pàkk lala cay dal ci wàllu musiba du nekk lu muy wax waaye danga ci teg sa bët ñu teew lu déclaration bi ci Cheikh Abdoulahan Mbacke waxoon ci njaayum pàkk yi bi nga defee ci Touba mosquée ñu ngi ñëw ci ne mboolem lu aju ci Touba loolu ci la képp koo xam ne waaye daan def ñu defante suuf di ko jaayante te defe ne war naa mën a sotti fa saasa da nga xam bu baax a baax a baax ne loolu mënatu la sotti nga suuf si bu dee ci àll bi mën ngeen a am kenn lenn loo xam ne bii dinañ ko topp ko def ca la li ngeen ko war a def door caa mën a am këyit bi ngeen mën a moom suufa kon fii nga xam ne dañu ko moomale Sëriñ Tuuba ngeen defe nag ne warees na caa mën a bàyyi ko ñu di ko juree ak di ko jaayee di ko defante na la neex loolu ak doyade rek la boo xam ne ñu fi nag mënuñu ko seetaan du lu am du lu am li ko war li ko war a saafara nag defees na ko ba noppi soxla wuñ dee si ko wax ku defaatoon na beneen déclaration moom Cheikh Abdou Lahad Mbacké ci tiwo yi ñuy bënn wala branchement yi ñuy def jëmale ko ci wàllu ay robinet yi nekk ci biir kër yi nit ñi nu leen neex lañ ko doon dagge loola itim metti woon na Cheikh Abdou Lahad Mbacké ba mu waxoon ne ku soxlaa am robinet sa kër nanga dem préfecture bu Mbacké ñaan demande su matee fukki nit ñoo wutal la robinet sa kër ñu lu déclaration bi mu ci defoon ngir di bañ ndox yiy taa ci mbedd mi ku bëgg see bagaas ak lu dina foo ko bëgg mën a def da ngay def tamaam yéene ko parasa mbàkki parasa boobu nag su damaa yematee ñett ba ñeent ñu ngi ko service ba service ba yaral si ñoo xam ne ñoo leen di defaral li nga ko war a def léegi léegi ne kon defal ko sa ñu tere la dañuy sàcc village bu ne ña fa ne danañu leen jox ndigaleen ñu di ko képp koo xam ne gis ko sa bopp laa si jiw te daañu ko jëfante yow ku soxla daal ci la indi ndox loolu jëfeñ bindal bataaxel def sa demande yónnee ko préfet préfet saa boo xamante ni demande ba mat fukki demande danga téléphoné service bu ñu ñëw bu mu fopp rakkam jooju Cheikh Abdou Khadir Mbacke def ko imaamu Touba ndax Cheikh Mamadou Fadal Mbacke moo nekkoon xalifa général des Mourides nekk lii di imaam kon ci août la Cheikh Abdou Khadir Mbacke nekk imaam ci ndigalul magam ji Cheikh Abdoul Ahad Mbacke te xam na ne ku faatu ñoom ñu ne nañ yóbbu Tuubaa te armeer yii kat yàgg-yàgg day fees la Cheikh Abdou Lahad Mbacke xalaatoon nag egsi na ndax jamono ji armeer mu fi dolli waatoon ci nekkinam di armeer yee ñu tudde Baqiya la mu jortoon naxu ko Cheikh Abdou Lahad Mbacke xam ne itam lii di murid yi fu ne lañ nekk te itam bërëb boo xam ne nii war nañ fay yónnee wala ñu fay jot xaalis itam dafa war mu taxawal lii di banque lii di autoroute bi itam Cheikh Abdou Lahad Mbacke mooy ki ko fi def ndax xam ne ne kat dañoo war di dem ak Touba itam ci xilaafaam la amee ci atum 1976 Cheikh Abdou Lahad Mbacke nekkoon na ku am fulla ba tax na sax daanañ ko wooyu tur yu baree bari ñu ràññee ci tur yooyu ñàkk caaxaan ñàkk caaxaan googu taxoon na musta nangu lenn lu metti murid yi ndax waxoon naa leen kat bépp murid bu wànneen tuufaay ba koy faj Cheikh Abdou Lahad Mbacke mooy ki ko war a laaj ci pharmacie bi jënd ko am na ab daayira buñ fi taxawaloon ci atum 1985 tudde ko jeune murid te ay étudiant taxawaloon ko ci université bu ndax ndakaaru keroog bi cheikh abdoulahad mbàkke xamee ne daayira bii daal wute nag lool moom li mu yaakaar ci njàngaleem xaadim rasuul dafa wax ne buggututa gis sax daayira boobu wala kenn ku koy nuru nurulu mu def ñaari seede ci daayira ba di wax ni daayira bi da bu fekkee ne baat bi biñ ko tuddee la moom jaaxal na ko lool ndax baat bi làkku tubaab la waaye bu doonee ci wolof yi ñu nàmp am na lu mu fay tekki mu ne bu fekkee ne ci tubaab la ndax jeune murid lañ ko tudde woon ndaw de te sëriñ Touba tël ta foo tël ta falu bi ci des nag moom mooy sën ci wolof lu waaye soxlawul rek nga fay sànni te seexul xat xaddiim tàqalewul dara wala ñàkkut a bëgg dara ba lum am xëpp ca kon nag bu fekkoon ne tudde nañ ko sax tur yi nga xam ne xam nañ ko ci yoon wi mafaatihul bisri mi ngi fi te tudde wuñ ko ko masaalikul jinaan mi ngi fi te tudde wuñ ko ko ñoom nag jaani ñàngoor la leen jàppe woon daayira boobu wéyoon ci yoon wi musiba rek la koy jural alhamdulilaa nag la wax bim ko tasee kon responsabilité ku ko daa jël la su ko matee jël kii di sëriñ Tuuba Cheikh Abdou Lahad Mbacke dafaatoon na beneen déclaration di nii yeneen ci seen moroomi murid dañ leen di nax di leen wax ne bërëb bi bërëbu ziar la wala ñu leen di joxum ndox di leen wax ne ndoxum barkeelu la sëriñ Tuubaa Cheikh Abdou ma nga doon xamal yeneen murid ya yeewu ci loolu di leen wax ne ay nax kese la te loolu itam bëgg na mu jóg ci dëkk bi bennum ndox rek moo fi am mu ñuy barkeelu te kenn jaayu ko muy ay nu raxmati ku leen man di joxum ndox nag ak fu mu ko mën di jële ak wax jum leen man di wax ca basee ba dong nag la ko tànqe jox leen ko ngalawaay bu leen ko jëfandikoo fudut fiñ denc cheikhul khadim du jumaaji ji nekkul yeneen barab yiñ denc gaayu baax yi ay nax kese la mouride nak nañ ci yew te loolu itam dana ko xex bam joggé ci dëkk bi ñu déclaration bi ci cheikh abdou lahad mbacké defoon ngir mouride yi ci ma bëgg ñi nga ñu rek liñ ak bëgg lu kenn bañ nax wala kenn bañ ku ngeen ci gis mu ndox leen ku mu doon ci baaj ba rek ko ñu ko ku ñu barab bi suñu dara furul barabu Sëriñ Tuubaa bi ak yeneen barab yi nga xam ne ay kilifa fa ne

leen cheikh abdoulahat mbàkke jàppe ne moom la ñuy def jaajëf baayu soxna daba xam ngeen ni lii di jumaay tuubaa amoon na ay garab yu ko wër waaye cheikh abdoulahat mbàkke defoon na ab remarque di seetlu na daal ñu ci bari grand place lañ bëgg a def buntu jumaa ji mu daggulu lii di garab yi wër jumaa ji ndax caaxaan ja lay bañ mu xam ne waajuram wu tedd wa demul màkka waaye nag faye ko ci murit yii yóbbu leen màkka dana taxitim waajuram woo bég li cheikh abdoulahat mbàkke yóbbu ci màkka kenn xamul mu toll nañ ci wooye boroom fulla ji daraja joo man di am ci réew mi wala ci àdduna bi soo ñëwee soo jàkkaarloog moom soo deful lu yoon mu wax la ko ndax xam na ne kat mooy xaadim rasuul ci kaw suuf fulla jooju sax bisub keroog bi Léopold Sédar Senghor ñëwee di ko tàggu ngir di ko xamal ne day bàyyi lii di réew mi jox ko président de la république Abdou Diouf ngir mu wuutu ko tàggoo gi mu doon def ci këru diine yi bi ñëwee ci Cheikh Abdou Lahad Mbacké mi ngi koy xamal ne bis bu la Sénégal yi sante benn yoon yow war nga leen a sant fukki yoon ndax yàgg nga fi te musuñu laa bund xotaal musuñoo xool bang bi nga toog kon nag soo demee bay tàggatoo war nga leen a gërëm fu lay seex Abdou Lahad Mbacke ku ko bëgg a xam laaj ko si dana la ko wax ba tey ci fu lay seex Abdou Lahad Mbacke dafaatoon na beneen déclaration ndax dafa am ab daayira bu dëkkoon ci dëkk bu ñuy wax njaboot daayira boobu président daayira ba dafa lekkoon lii di xaalisu daayira ba ba waa daayira ba nag doon ko ŋàññ bindoon nañ sëriñ Tuubaa Seex Abdou Lahad lii di lettre ngir mu dal ci kawam sëriñ Tuubaa si Abdul Ahad ma ngi leen di xamal ne moom ay bi boppam doy na ko te na mujj tey nag ab daayira wala kenn di ko bind ab lettre di ko wax mu xas nit ku yaakaar ne nag addiye yi nga koy jox xaalis boobu war naa tax nga jort ne lu la neex nga def loo ko ko ko ndax nga sa bopp moom li muy dunde sëriñ Tuubaa Seexul di moo ko ko jox ñu teew lu déclaration bi ci Cheikh Abdul Ahad Mbàkke defoon te waa daayira ba bëggoon mu leeralal leen ginnaaw bu jotee lettre ba lii la leen Cheikh Abdul Ahad Mbàkke tontu ñoo xam ne ñoo ngi dëkk ca Njawal ak la ko wër la ñu wax fii moo ko bindi xaw ma ci turu kenn waaye ma di leen xamal ne nag loolu ma bind ci laajte ba diggale wu ma ko ñun waaye jot li ma aw jullit nag ak naqar woo am ci nit ak melaw nit kooku mayu ma ko kenn kenn kenn ku yàlla bind ci sama bopp yow nag bi na maa xalaat na maa yittewoo doy na si ayu bi keneen kon nag ku am loo may defal ba tax nga defee ne loolee ngay def muy jaar ci man ba war naa tax nga mën la loo xam ku ku mën di doon ci kaw suuf rek may ma liggéey bu ma ko kenn man daal Serigne Touba a fi nekkal ku yaakaar Serigne Touba nekkal naa la ku dara dara waaxal xam waaye lu nit xalaat naa ma defal nangam waxal nangam ñii nañu nangam yàlla weesal naa ko sama bopp te dara mënu ma ci dellu kon nag fépp su mbooloo ne di fa def loo xam ne Serigne Touba la ñu ko a bu doxuloo amee wala soo amee ko sant naa leen ñu bàyyi ko ngir loola njëriñ li ko tuddee ñun njabootu Serigne Touba ji ñu leen boole sa xalaat jëm ni ci boeken gaat, maar ook andere. te la ngay wax fulla ji jàmbaar ji di Cheikh Abdou Lahad dëkk bu sell bii di Touba ñaari mètre yoo fi dox ci gàttal daal gis lu mu jëf ndax kat xool ba moo yaa lii di suñ mbokk yeneen tarixa yi Cheikh Abdou Lahad Mbacké amu ci woon xajj ak seen ci xilaafaam bépp tarixa wala bépp khalifa ci nekkinam ñew nga ci Touba gi tek fi tank li di ay turandoo itam machallah allah cheikh abdoulahad mbàkke takuloon na ko lol ndax kat kep ku mu bokal khadim rasul tudde nga ko dom ndax fulla ji ka daa wax ne suma waxe luñ wara def ñu ne day xulo suma waxe deug ñu ne da mer di cheikh abdul ahad mbàkke mi ngi genn aduna bisub altene fukki fan ak jurom ci wer wi di weru dig ci atum 1409 ci gaday gi altene fukki fan ak jurom ci wer wi di weru dig ci atum atu 1409 ci gàddaay gi dëppook muy lundi 19 juin 1989 lundi 19 juin 1989 ci dëkk bi mu mujjee sanc ci nekkinam di Touba Belal ay atam tolloon ci juróom ñaar fukki at ak juróom keroog bi mu génnee lii di àdduna rakkam ja sëriñ Sohaybu Mbàkke moo woolu kii di sëriñ Abibu Mbàkke imaam ci Touba ak kii di Mohammed Haza Si nekkoon imaam ci Touba Belal ñoom ñaar ñoo waajal kii di Cheikh Abdoul Mbàkke ginnaaw bi nag lañ ko indi ci dëkk bu sel bi di Touba rakam ji di Cheikh Abdou Khader Mbacke moko ko ñu denj ko ci kër gim tabaxaloon waajuram wa di daaray Kamil Serigne Sidi Mbake Abdoul Ahad moy kiko wootu ci 1989 ba neugani ñukay ñaanal suñ borom guddal aw fanam te yokku wéram te yagal ko ci toogaayu Cheikh Abdoul Ahad Mbake Cheikh Abdoul Ahad Mbacke amna bis buñ koy fàttaliku muy bis bim gané aduna ci wër wi di wëru olof di ñaar fukki fan ak ñett ci wër wi di wëru korité ci 1914 ci ndiarém màggal màggal gi ñi ngi ko tàmbali ci atum 1990 ci xilaaf ak sëriñ Touba Cheikh Salihu Mbacke ñuy ñaan ci jàmbaaru seexul xadim ja Cheikh Abdoul Ahad Mbacke ka toogoon ñetteelu xalifa xaadim rasul di Cheikh Abdoul Ahad Mbacke yàlla nañu ko yàlla fayal te yokk ay leeram te guddal fanu mbooleem njabootam gim fi bàyyi moo xam sët la bi la soppe la te jafe-jafe réew mi itam na ko suñ borom saafara ci barkeem amiin